allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa rabbi shrah sadri wa yassir amri waxlul huqdatan min lisaani yafqahu qawli sëriñ bi sëriñ Mame Libasse man ak délégation bi ma àndal ñu bawoo fa président de la république son excellence Macky ñu mën ci lim ministre bi nga xamante ni moo yor wàllu environnement bi di Alioune Ndoye mën ci lim ministre bi yor bi nekk ci sama wet dañu ñu dénk ko lépp lu jëm ci sécurité de proximité ak protection civile muy biram Faye ñu mën ci lim le ministre conseiller à la présidence Seydou Gueye mën ci lim gouverneur u Dakar préfet wu Dakar ak sous-préfet wu Almadi waaye bi ñu yegsee fekk nañ fi mu dalal ñu mel ni dafa taxawee taxawaayu ñaari tànk waaye bokk ci délégation bi muy Abdoulaye Diouf Sarr vice-président de l'Assemblée nationale waaye bokk fii ci gox bi yàgg fi am ay ndombo tànk ñu ngi ànd tamit ak président conseil d'administration ICS di Thierno Ndiaye ànd ak président conseil de surveillance su ACPEX muy madame Fatoumata Bagnan ànd tamit ak directeur général ASPT muy Pape Mao juuf bi ñu ñëwee rafetlu nañ ko te fekk nañ leen fi ñu nekk suñu ay mag waaye nekk ñoo xamante ni tamit ñu ngi ànd ak liggéey bi son excellence monsieur le président de la république Macky Sall te fare fële ci au conseiller muy imam Omar Diène le président Aliou Dia ak Ami Amel Top bi ñu ñëwee tamit sëriñ bi fekk nañ fi ñi nga xamante ni lim nañ leen sànq ñu bokk ci démembrement wu état bi ñu bokk liggéey liggéey bu rafet bi ñuy waajal appel bi lim nañ leen léegi Sénégal état unitaire la état unitaire décentralisé la gouvernement bi dinay taxawal askan wi am baat bu jóge ci son excellence monsieur le président de la république à travers le suffrage universel waaye ñi nga xamante ni ci gox goxaan yi tamit ñoo fa teewal askan wi ay banqaas lañu yu bokk ci état bi loolu moo indi décentralisation ba tax na fekk nañ ñu bokk ci état boobu ñu ràññee ci kii di Barthélemy Diaz ràññee ci kii di meeru yoof Seydina Issa waaye ràññee ci meeru Cambérène Doune ak meeru Ngor meeru Wakam ak meer yi jóge Malika ak caaro sur mer ñooñu ñëpp ñu ngi jël nuyoo yi gën a tedd nuyoo yi gën a sell di ko teg ci loxo Mame Libasse ngir mu jottalil ñu ko xalif bi di Seydi Mouhamadou Mokhtar Laye ak njabootu maam Limaamu Laye gépp di jël nuyoo bi ñu yàlla sant di ko teg ci sa loxo muy assalaamu aleykum wa rahmatullah wa taala kon tey ñëw nañ fii ni ma ko waxee léegi teew ci appel bi nga xamante ni mu ngi dëppoo ak téeméer ak ñeent fukk ak ñetteelu anniversaire ginnaaw bi suñu maam ju baax jooju di Seydina Limaamu woote woote woon woote bu rëy boobu mu woote woon te kenn taxu ko woon a jóg lu dul jaami yàlla yi ñu ràññee ci nit ñi ak jinne yi ana ci lan la leen woo daf leen woo ngir wommat leen jëmale leen ci borom bi yeesal li nga xamante ni moo fi jotoon a jib ñi ko jiitu woon liggéey ko kon su fekkente ni teew nañ fii gis wax ji rafet ji Seydina Isa bu suñu bay Ablaye Thiaw wax léegi jibal bak yi nga xamante ni ju jóge na ci kër diine yi dañ ciy sukkandiku ngir wax ni ñun de ku am leneen na jël waaye li ñu am senegal doy nañu ndax li ko waral mooy jibal nañ fii léegi bàkku Tiwaawan muy Seydi Aji Malick Sy doomam ju baax ji di Serigne Khalifa Ababacar si radiyallahu taala anhu dafa am lu mu waxoon bu nit mësaan na ñëw ci moom ni ko àll de mat mat mu ni aha kañ àll kañ mat naa ñee mat ndax àll ba ko amul waaye ñun ñii di Sénégal mat nañoo ñee ndax ñun la yàlla muurloo Seydina Limaamu kon loolu ñu teg suñu tànk suñu mag ñu baax ñi nàmpal ñu ci teg ci suñu tànk duñ ko teggi mukk ba kereeg ñu leen di fekk loolu nag mooy lislaam sama xarit di suma wóllëre yaramam sutante mu jot ma léegi téléphone di Seydina Mamadou Lamine Lay dafa wax keroog wax bu am solo ni tarixa yi ñu koy wax plurielu arab turuux ay yoon la rek mi ngi mel ni nga bëgg a ñëw yof jàmbala yi amaana mën ngaa jaar ci géej gi ñëw mën ngaa jaar ci jéeri ji ñëw waaye ñëpp fii la ñuy sooyee muy bërëbu Seydina Limaamulaay al Mahdi loolu nag xam gu ko son excellence monsieur le président de la république Macky Sall xam moo tax lépp loo xamante ni këru diine yëkkati na ko fii ci senegal mu bokk ànd ceeg ñoom liggéey ko ak ñoom ba noppi xam ni dafa yole wàllu àdduna bi waaye wàllu jikko yi ak wàllu xol yi yéen a ko yor te bu doon wërsëg wi nekk ci àdduna yépp tuur na fii ci suñu réew te xol yi baaxuñu jikko yu baaxuñu du am njariñ ndax bëri na ay réew yoo xamante ni ñooñu ëpp gàncax bëri na ay réew yoo xamante ni ñooñu ñu ëpp meññeef bëri na ay réew yoo xamante ni ñooñu ëpp wërsëg waaye mënuñu ko jariñoo ndax jàmm amu fa moo tax damay rafetlu thème bi nga xamante ni tànn ngeen ko muy paix et développement selon les enseignements de Seydina Limamou waaye nag loolu buñ ci taxawee tuuti dinañ gis ni Seydina Limamou moom loolu noppi na ci ndaxte ki la jàngal ni bu la nit dabee sa kurus dagg sa kurus foral say per nga dem kooku moo jàngal non violence laata ñuy xam Gandhi laata ñuy xam Martin Luther King loolu waral na lii nga xamante ni son excellence monsieur le président de la république Macky Sall sumb na ko ci këri diine yi muy programme de modernisation des cités religieuses doxal na ko ba yegg si fii nga xamante ni mooy yoof préwo bi ñu nekk suñu wet bi ñu ñëwee keroog directeur général u AGETIP mi ngi ko koy présenter di ko wax finition yi fi ñu toll ak programme mu Promoville bi nga xamante ni bu noppee dafa war a daj lépp li nga xamante ni mooy gox bi loolu ci loolu lay wéy moo tax fële tamit ci Cambérène gis ngeen liggéey bu rafet bu sell bu mag bi mu fa def nekk ci wetu bu Seydina Issa loolu daal mooy li nga xamante ni waxoon na ni su ma ñëwee naa ko séddoo ak yéen dina sàkku ñaan ngeen jotlil ko nii mi ngi sàkku sëriñ bi ñaanal réew mi ñaanal réew mi mu am jàmm ñaanal réew mi mu am dal ñaanal réew mi ni ko sëriñ Abdou Aziz si Dabakh daan waxee suñu borom tàppe xol yi yàlla sotti fi sutura sotti fi xéewal sotti fi naataange wasalaamualeykum wa rahmatullah wa taala wa barakatuhu